ce peux te rassurer ici noonu lay continuer loolu président Macky Sall mën ko président Macky Sall nga xam ne mënul tere Ousmane Sonko élection gis nga kenn rek moo warul bokk kan moo warul bokk kan moo warul bokk xam nga ni xam nga bu ma la waxee doo bokk doo bokk gis ngeen en la même détermination, avec le même engagement pour le départ du président Macky Sall. Et sama gars yi sama gars yi ni ngeen koy waxee laa koy waxee bu dee paale leen ñu bagaasal ko bu dee leen ñu bagaasal waa ji nan ko bagaasal le 25 février 2024. Nous changeons notre pays, le pays qui nous tient à cœur. Je vous remercie et ndax ndaxte xam ngeen ni Macky Sall moom moo àtte boppam nul ne peut faire plus de deux mandats wax ko Ablaye Wade wax ko boppam ba pare bugg a bokk dafa fekk ni ci doole la yaakaar comme nu mu defee keroog ci Ngor parce xam ngeen ni waa Ngor ñoo moom dëkk waaye ñu jaay leen doole waaye fan la mujjee fan la mujjee Ngor. ñu reculer bu lii bu tàggul bu fekkee ni bàyyiwuñu bu fekkee bàyyiwuñu ñu divisé wu ñu jàkkaarloo on va triompher peut-être yéen yéen ñu ci bëri juin fekkewu leen ko waaye man ak Macky Sall bis boobu ñoo ànd yendu di ànd. kër ne woon na ni mag Ablaye Wade mënul am deuxième mandat troisième mandat moom mu wax ko atte boppam mbokk yi mbokk yi déglu leen wax leen quelque chose d'important bu fekkee ni américain yi nga xam ne daawul wax mbirum Sénégal dem nañu bay wax ak Macky Sall dafa fekk am na lu ñu ragal xam ne daawuñu ci wax dem nañu ba fësal seeni position dafa fekk xam nañu Macky lu muy nar troisième candidature la te lu ëpp tuuru kon ci kàddu yi ma wax ci pulaar ñaari kàddu ba la may terminé wanduraabi Sénégal wanduraabi Sénégal enen Sénégal naaɓe mbiɗen ko ndima jeeyi konngol mum tan ko ɓe haali noddi leydi konngol mum fulɓe noon nden noon ko harimeji mumen jeeɗiɗi rek harimeji jeeɗiɗi en jeeya ɓe fittita ha istal ko neexee moom

pour défendre la candidature du président Ousmane Sonko. waane bu ñu fay dem il faut que nekk doomu ndey ànd nekk benn parce que yéen askan yi benn lañu. gaa bi ni ngeen ko waxee simple na mooy Ousmane Sonko dana bokk. salaamaaleykum jeunesse du Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetaayu seen taxawaay. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di siyaare man nag sama kàddu ci yéen jeunesse bi taxaw na ko dafa am benn bëgg-bëgg bu ñu am waaye bëgg-bëgg boobu pour ñu mën koo am foo ñu xàmmee suñu noon xàmmee waxtu wu war bu ñu war a xeex ak waxtu woo xam ne dañu war a tàcc fii tey yaakaar naa ñi ñëw ñëpp xol bu neex la war a jële te yaakaar naa ne yéen seen xol neex la xolu Macky Sall tey neexul kon donc nag bu ngeen ñëwee bépp leader bu mu mën a doon su ko F24 accepté mu nekk leader F24 ko jox ko micro accepté leen ko ngeen déglu ko parce que xeex bi des naa xeex bi des na te bu ñu foowaloo dañ koy yàqal tey nag suñu yër ndaje la faay yëpp nañ koo baale mais beneen ndaje boo xam ne ndaje F24 la buñ jox micro bi nañ ko déglu boo paree ñu tàcc ko parce que nag loolu laay ñii ñëw fii bu Sall. muy Thierno Alassane muy Boub muy doyen Habib ñoom ñëpp ay bor lañ waa ana Youssou Ndour ana Youssou Ndour Youssou Ndour sabaa bi ba ngi fii di ndaje mi neex na mais yow rek la fi manqué 2011 ñoo yow la woon kon 2023 ñoo ngi lay xaar wasalaam. taxaw di leen ñaan di leen ñaan bu leen tontu benn provocation te na ngeen fexe ba ñibbi ci jàpp loolu rek gën a ñaan bu leen ko defee rek def ngeen lépp wasalaam